you dal leen ak jàmm ci seen round-up de l'actualité fii ci Diaspora TV ginnaaw ba ñu leen nuyoo dinañ leen dalal daal di dooree ak suñu gaynde yi Sénégal war a ak Angleterre dimanche bu ñu jógee ci sport dañuy dem ci politique ak assemblée nationale bi di wéy di jaxasoo ndax kii di député Massata Samb bu PUR moom moo dóor kii di Amy mi yëkkati woon ay kàddu yi ci kaw Serigne Moustapha Sy ba ci assemblée nationale Mimi Touré ak Barthélémy Dias fàttali nañ kii di. Ismaïla Major Far ay kaddom ci troisième mandat bi ñu jall ci société ak sergent Fulbert Sambu mi nga xamné ne nañ ko boromam waye famille bi kat nee nañ dañuy porter plainte Ahmed Suzanne Camara ndax mom mi moo ñaari militaire yi xamna na ni dañ leen té ñu leen dara waralu ko ci problème Pape bi lolu mo gënon ci xibaar yi ñu yaatalal leen ko ak politique nag la ñuy tàmbalee lu nekk yàgg nañ ko gis ci assemblée nationale waaye la fa xew démb dafa jéggi dayo député Amy la Massata Samb dóor moom nag Massata Samb la ko naqari ba mu jóge fa mu taxawoon ñëw song kii di Amy Ndiaye mooy kàddu yi naqar yi mu yëkkati teg ko ci Serigne Moustapha si ba mu koy dóor sax am na beneen député bu jógaat daal di wékk Amy mii ci biir ba loolu weesoo docteur Malick Diop député APR bi mi ngi xamle ni kooku di Amy Ndiaye dafa ëmb ëmb mi ngi tolloon ci ñetti weer nu liir bi def nag dinañ ci dikkaat ba ñu demee ba toogaat lu yàgg am na beneen député APR aussi bu ñëwaat daal ne ah sëriñ bu fi wax waxe politique kat ñu tontu ko tonti politique loolu daal di yëngalaat assemblée bi ba coow la commencé waat waa yeewi nag boobu ba tey waxaguñu ci mbir mi waaye bañ ca weesoo jàmm na ba ñu mën a continuer liggéey bi ba tey ci politique ñu wax ci troisième mandat kii di Ismaïla Madior Fall mom amul luko opposition bi waxul Batali Dias sax mom bamu mu dafa génné téléphone dal di koy tegal kàddu yoy nga xamné mom Ismaïla Madior Fall moko yëkëti won ci 3 troisième mandat Mimi Touré mi faroon ci Benno Bokk Yaakaar mom dafa fatali bi Sénégal génné won pour interdire troisième mandat Batay mimiture, Mimi Touré dal di profité pour tontu ki di Oumar yu mi nga xamné dafa wax ni ci ni Sénégal di doxalé ay affaire am Mimi Touré daal di koy fàttali ni ba fi wadd nekkee bëgg troisième mandat ONU lañ demoon pour euh, daal di koy clamer ba tey ñu wax ci politique ak jigéenu APR yi nga xam ne tey doon nañ janoo ak presse bi ngir wax ne ñoom daal dootuñu nangu kenn di saaga seen président Macky Sall ba pare daal di xam ne itam ne ñoom laleen jaaxal mooy lan moo tax waa opposition respecté wuñu ñi nga xam ne ñooy jigéen kii di awaña ba tey daal laaj laajte ne lan moo tax bu ñu violé wul rek ña ngay door aka saaga loolu nag lañu wax ne dañ koy daal di jeexal ndax kii di Marie Angélique mi nee na moom xam na ni yëf yi daal fu muy mujjee mooy coquette pour coquette daal di nañuy wax ne nag ñoom dinañ porter plainte ngir topp mbir mi xew ca assemblée nationale. suñu you ci politique dañuy wax ci société ak de disparition wu de ak agent Fulbert Sambou mi nga xamné djébal nañu ko autopsie di Ahmed Suzanne Camara mel ni ku xam dara ci mbir mi ndax té waxna fé TV que ni ñaari yi dañ boom dara waraluko problème affaire Pape Alé mi nga ma ngay def grève de la faim prison dit qui di maître Kabonak des avocats famille bi de porter plainte ngir Ahmed Suzanne Camara mu ndax dafa disparition ñaari militaire procureur nak mom information judiciaire pour xam lan Sambou ñu jall ci sport mardi Sénégal seen xol féex na gaynde yi dañoo dóor Équateur Ismaïla Sarr moo dugaloon penalty bi ginnaaw gi le Équateur daal di égaliser waaye kii Kalidou Koulibaly moom moo Sénégal daal di gagné ndax dugal deuxième but bi dimanche bi nag Sénégal dina laale ak Angleterre pour qualifier ci quart de finale bi Sénégal gi nga xam ne du jouer ak Idrissa Gana gay ndax ganna dafa dajale ñaari carton jaune benn joueuru Angleterre bi moom dafa jékki-jékki rek daal di dem kenn xamul lan moo mu jógee ci coupe du monde bi ba ci coupe du monde bi fédération sénégalaise FIFA daan fait. ko ndax dafa a fay 6 millions parce que Aliou aussi yóbbuwul woon joueur yi ci conférence de presse avant dernier match bi tey nag Afrique moo ngi yaakaar gana daal di bu ñu bëggee fekki Sénégal ak Maroc waa gana dañoo war a dóor Uruguay Tunisie moom ñibbi na moom itam ginnaaw ba mu dóoree France naka noonu Allemagne ak Belgique itam ñibbi nañu dañoo lajj ci phase de poule yi suba nag Cameroun moom dafa war a dóor équipe bu Brésil bi ngir mën a dundee yaakaar. ak people la ñuy jeexalee suñu round-up bi ndax kii di Papay Bamba moom laaj nañ ko lu mu xam ci diggante doomam. kooku di Virginie paa bi nag moom nee na xamul Virginie lu dul daal xanaa ci série yi comme ni ko ñu ëpp ci senegale yi xamee ci tele bi rek la ko xamee doomam Bamba Dieng mosu ko wax waxu Virginie mosu koo xamal ci seen diggante dara foofu lañuy jeexale jeexalee round bi suñu mbokk internet Diaspora bi TV di leen jox dig daje ci yeneen émission fii ci Diaspora bi TV